di wax ne am nañ mbégte wax dëgg yàlla pour si ñaareelu yoon ñu taxaw fii di organiser li nga xam ne moom mooy feetu indépendance ku ne xam na ne 2019 fii lañ ko organiser woon loolu nag wax dëgg yàlla am nañ si mbégte lool waaye di wax ne li nga xam ne mooy 63e anniversaire fête indépendance bu Sénégal ñu ngi koy amal chaque année le 4 avril ci année bu mu tombé. donc kon loolu moo waral ñun ñëpp ñu war a boolontoo delloo njukkal suñu ancien combattant yi ak ñi nga xam ne ñëpp ñoo doon xeex indépendance fii ci Sénégal surtout force de défense yi nga xam ne moom ak sécurité yi bu buñ ko waxee militaires yi képp koo xam ne yaa ngi yor sécurité di aar doomu yi rek ci nga bokk donc mu nekk bés boo xam ne kon bés bu am solo la ñu ciy jaajëfal ñëpp waaye di wax ne thème bi nga xam ne moom la ñu indi tey mooy li jëm ci ñi nga xam ne ñoo yore kaaraange réew mi waaye également ñu fexe ba li nga xam ne mooy suñu ressource ressource naturelle nag buñ ko waxee ay ndox ak lépp loo xam ne rek luy bokk ci dundu aadama te ñu fekk ko fi ñu fexe koo euh, conserver ba bu mu yàqu waaye thème boo xam ne gannaaw bu mu amee importance loolu mooy képp ku fi nekk muy ndaw ñi muy jigéen ñi muy góor ñi imaam yi chef de village yi notable yi maanaam ci gàttal population yëpp ku ci nekk war nga xar sa tànk tubay pour que suñu ressources naturelles yooyu ñu mën leen a aar loolu nag dafay tombeek li nga xam ne tey jii moom mooy mën naa ci citer sax li nga xam ne mooy ressources naturelles yi parce que dafa coïncider ak pétrole bi nga xam ne génne nañ ko fii ci Sénégal maanaam thème bi génne bokk ci li ñu tuddee zircon ak ay gaz ak yooyu yëpp am na fi waaye ñu wax ne ressources naturelles yi wax naa ko ndox ak suuf ak yëpp li nga xam ne dafa bokk ci kii bi ñun war nañu góorgóorlu ñun ñëpp ñu xaar suñu tànk tubéy pour mën a conserver loolu. donc fête de l'indépendance bi nag mun nañu wax ne mun nañ ko bu ñu ko tuddee rek xel yëpp dina dem ci li nga xam ne mooy militaire yi waaye mun nañu wax ne bés boo xam ne la képp koo xam ne rek xeexoon nga ci Sénégal wala nga am rôle boo ca yoon ak foo munta nekk rek dafay mel ni dañuy dëppaat ñun ñëpp ñu dajee ci benn programme boo xam ne mbégte lay doon waaye ci biir loolu képp koo xam ne rek yaa ngi ci biir Sénégal di yëngatu ak si secteur boo munta nekk moo xam li nga xam ne mooy élèves yi nga fi ñu mobilisé wu ñëw enseignants yi jëm ci ñi nga xam ne ñoo yor activité sportive groupement yeeg ñëpp ak corps métier bu fi mënut a nekk rek ñu lay sant di la gërëm di wax ne nag bés bi moom mooy 63e anniversaire waaye comme ni ñu ko waxee rek dafa far daje li nga xam ne mooy yonent bi sallallahu alayhi ku ne xam na ne fii ni ñu toll tey mi ngi ci juróom-benn fukki at ak ñett kon nag loolu dañ si sant yàlla bu baax di wax ne nag wax dëgg yàlla kon feet bii ni nga xam ne moom lañ fi def ñu ngi ñaan yàlla fekkee ko jàmm. jàmm jooju nag mooy ñi nga xam ne ñoo fi jël discours mooy ndaw ñi ak euh, les maires là ak keneen koo xam ne rek euh, la secteur bi nga xam ne moom mooy développement yi groupement yi ñëpp ku ci nekk dégg nañ kàddu yi bu ko defee ñun ñëpp ñu ànd li ci war ñu fas yéene ko def pour que Sénégal jëm kanam kon nag maa ngi terminé kàddu yi di wax ne ñu ngi tàllal loxo ñëpp imaam yi ak chef de village yi notable yi autorité yëpp xeebuñ kenn ku ci nekk rek fa nga nekk ak dayoo bala yàlla jox rek ci ñaan boo munta nekk ak ñi nga xam ne parce que dañu nekk ci pays boo xam ne pays laïque la parce que ku ci nekk religion ba nga bokk rek ñu ngi lay tàllal loxo nga ñaan Sénégal jàmm continue fi am waaye li nga xam ne moom mooy projet yi ak ki nga xam ne moom la fi yàlla teg mooy son excellence monsieur Macky Sall bu ko defee ñu ñaanal ko ak réew mi ak gouvernement bi yëpp ak bépp autorité boo xam ne yaa ngi ci localité yàlla dimbale ñu ba projet yi ak mébét yi ak yéene yëpp mën a sotti si jàmm loolu moo ñuy yóbbu ci Sénégal émergent bi ñuy wax yàlla nañu fa yàlla yóbbu. yaakaar bi nga xam ne askan wi am nañ ko ci ñoom ñu traduire ko mu nekk réalité bu am solo ñu ngi jégalu ñëpp parce que tàng na wax dëgg yàlla mais gis nañ kenn ku nekk fibrant wala fibre patriotique bi nekk ci yow ak citoyenneté bi nekk ci yow tax nga lu mu tàng tàng yëgoo ko lu mu tàng tàng tong muñ ñu gërëm ñëpp di leen sant.